yow man boo gisee sax sawaruma di wax ci affaire géejawaay alaaj sax bu ko neexee wax ndax alaaj moom daanaka ay maas lañ waaye yow da nga boole lu ci bokkul ak di saboté ville de l'année d'accord na dégg nga deux mille dix deux mille dix neuf deux ma leen jàppale jàppale jàppale jàppale lu ma fa dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk mooy wax dëgg te yàlla tax kantaan nag nga naan ville du moom yow da nga ëppal yow mantulaay yow waaw foofu nag laay mais mais mais mais mais léegi daa dam daa damm de. dafa damm kay la de. nga ne maire bi. ni ngeen tàmbali maire hmm. bu ndaw la xaw ma di. damay laaj dong de ah. damay laaj dong xaw ma di en tout cas daal ña nekk yëpp nekk ay maire daal juróom-benn lañ juróomi commune ak benn ville te ñaar ñi ay jigéen lañ ñun suñu meer jigéen la Ami Kanté. Hmm. maire golf jigéen la <laughs> Aïda Sow Diawara. ñeenti maire yi des ñooy ay góor foofu nag laa xabaar yooyu daal xam naa ni moom laa xam ca géejawaay man mais yi des yëpp xaw ma ci dara. en tout cas jabaram ja baaxul de. te alaaj doo ma dugal. jabaram ja baaxul de alaaj. nee nañ dafa fiir. ah dafa soor. weer sa weer sa jëkkër nag weer sa bopp la doon. weer sa bopp dong la ak ak ak ak yàq say doom. waaw yàq non yàq say doom ngay wax. yàq yàqeet. waaw yow yow fi ni nii xam nga alaaji. ñàkk fayda xam nga li ma la fi doon wax barki démb ci jéeg boobu te mu jël ndox mi te tuur ko waaw waaw jëkkëru <laughs> soxna soose. waaw te jëkkër deful dara lu dem rek di aaye ji. kese waaw léegi nga sotti kooku. yow léegi digg ginnaawam gi yow ñor kom. kom léegi bu ko defee bu demee. buy rombu di rombu ay doomam yoo xam ne ay mag lañ. te yow ki muy aaye ji sax. dëgg yàlla. Ah, nekkul ko ab njagamaar. xanaa mooy. Hmm? mooy mooy mooy doo jaaxaan di di di di xalamlu. di waaw waaye moom it dootul jaaxaan di xalam lu de. Ah, ndax moom fi mu ne nii moom bopp bi moom dina dina bilibaane. Ah, dina mel ni ku. yoor ah, <laughs> yooroo di lekk gerte kemb. bopp bi day bilibaane fi mu toll. parce que moom it ay doomam alaaj ci boppam xam ga soxna si. bu dee lii mu def tiitar nii tiitar la. tiitar de na dem rek tiitar de. waxuma la dara sax waaye kilifa gi waa ji doon kilifa rek. waay yow nga ko naan da nga koy jéem a weer. <laughs> boppam la wax de boppam fekk nag yooyu. ah Ilaah Ilaah. waaye daa ko def rek. bu ko fekkoon mu takk ñaar ak ñett dëgg dëgg fa yàlla. yow bu takk ñaar ak ab gone daal da ngay gaaw takk gaaw takk ko. waaw ah. da nekk di yónneenti ah. ah, du jar photo parce que da koy gis en chair et en os. non te te te du jar appel vidéo. à gogo. lay ne. à ta disposition. lew. à la place de la photo ce sera euh, euh, à gogo. gogo lew. Euh, law. lew law. Euh, euh, euh, barkel sakkan barkel. sakkan la sakkan la barkel. wallaahi wallaahi qualité quantité. quantité ñaar yëpp ay daje. waaw doo làqatu. laa may dee góor ñi naan la gën a neex mooy sàcc. jaajëf balaa may dee ñu naan ay sàcc gën a neex ci loo gis. alaaji bu saaxoon nee na alaaji bu saaxoon nee na am ponkal. mu toog ba xaaji guddi moo yollee ko digg ci mu nekk. te balaa ginaar a sap mu dem te bu dem bàyyi fa ñaar fukki junni. Hmm. moo di jubati. nee na boo jubee dëgg dëgg dëgg da dugg ci néeg bi tàkku sànn ñëpp di la gis balaa ngay génn jent bi dem ba ni dàng nga génn war doo sab sarbet aw ci ëtt bi dox te kenn du la joxoñ <laughs> ah, com te booy booy dem doo fa bàyyi cent franc eh, say rek a wóor non lew do non <laughs> c'est que say alaaji <laughs> lewle lewle dara mel na dara mel na ni alhamdulilah doonal waxambaane rek comme suñu genre gi dugg ci mu kër ak fam soxna waaw sëy séygul ci yow waaw saay boo dikkee say goro ci boppam ñoo lay ñoo lay lalal basang. saa bu la neexee dugg. alaaj déet goro yi ci boppam. ñoo lay lalal basang rawatina bu jigéen ba. wallaahi mooy lal basang teg ci éponge. teg ci yu sedd teg. xale baa ngay sangoo ko waaj. wallaahi ah goro te amul wàcce rido. déedéet ci digg ëtt bi nga naan daj. teg sa lépp ak say tànk tey commandé. ak say tànk ah tey commandé. njëgën naa ci poot. wallaahi kon ndeyam ak bàyyam a ngi toog. tey commandé. ataay ja jolli. te lu ñu wax ci kër gi boole la ci nag. déet alaaj xanaa dama ne lii mooy farata. waaw yow dama ne da nga njëgën naa ci poot <laughs> de ma de. waaw waaw ndey jaag bàyyi baa toog si ëtt ba. wallaahi ataay jàng jool lay waxtaan. wallaahi ñu teg gerte gi ak soow meeg ndawal li. di jar jari. di la laaj li ñuy togg. <laughs> boo jëlee léeg-léeg mu jékki-jékki moos wokk sa digg bopp bi. doo ci mën dara. ah waaw mais waaye nag. bu dee moon defoo lu dul def ni kii. bu leen bu leen neexee tàkkusaan alaaji ngeen dugg si néeg bi tàkkusaan. Ah! bu leen neexee tàkkusaan ngeen di sax alaaji dafa sori. Ah. naa boo añee ba pare li ngay njëkk a def kay xanaa muy sieste dem ni njoosante ah. wallaahi c'est que dëkk bi farata yee fi taxaw de non laay farata yee bu ci takkul jaww alaaji naan da ngay wut lu neex jeeg naan ko maa ngi yow ba jusqu'à la mort yàqu nga jusqu'à la mort ah baax na baax na bàyyi leen di araamal li yàlla daganal ci yéen alaaji loolu yàlla wax de ah bu leen araamal li yàlla daganal ci yéen waaw lii baax na waaw xam naa ne day waaw ñun day xam naa ne ñun day suñu tund wi la Cheikh Tidiane si almaxtum waxoon de danaa ko wax suñu waa koñ de suñu tundoo alaaji war nañ koo sàng de waaw li ah, nga ma doon wax nag alaaji maa ngi commencé ndànk ndànk di daanaka daanaka bukki daanaka fi nekk na ah, bukki waaw nag ndëgg dëgg waaw ñun ñun dañ ko war a sàng daanaka nag suñu bukki bukki bukki ëpp leen ah, ëpp leen ëpp leen coow de waaw fi nii nii de dajale imaam ya nag yaakaar naa ne daal ak ak ak euh, chef yi jot na de waaw waaw waaw jot na nag ñu dajale doit tund nag ndax lii daal. lii daal rax rek la mën a ne. lii daal damaa foog ni daal géej waaye daal xanaa dañoo rax. ah li Cheikh ba daan wax. est-ce que wax nañu leen. déglu leen déglu leen coow li mu ne mu ne ah waa lii. ah xanaa dañoo rax. walaay de sa waaye de ñu ne de lii. yàlla yokk leeram de. ah amiin xanaa dañoo rax. mën di El Hadj li jaar. ah waay waay waay ah. waaw mais lii xanaa am rax la. waaw daa mel ni ñu ne rax na. non lii nekkul ñun dong de. daa mel lii kër ga rax na. waaw waaw nekk lii moom. Ah. ay baa ngi ni alaaji hmm? ay baa ngi ni yaa ayyuha alladina amanu ah, laa tuxarimu tayibatin ma axala allahu lakum suratul maida yéen ñi gëm yàlla yéen la ubbee de li yàlla daganal ci yéen nga la waay bu leen ko aramal ah, yàlla daganal na ci yéen ngeen takk ay soxna waaye takk leen ni soxna waaye bàyyi leen vidéo yeeg ñoom seen kilifa ah, ah te sa jeeg boobu nag. kan bi. ni que l'islam sant ne ko dana ko na ko sanctionné noonu. ala sanctionné jabar yi waaw. waaw. waaw koy sanctionné. Ah. fahjuruhunna fil na ko na na na doose ci kawlal bi. bu ko ah. bu fëggee na lànkoon ko ginnaaw rek. kii kay kii kay nag alaaji moom xanaa jéeg kay dofatul nag di fëgg. <laughs> jéeg ñeme naa dof dof lu di fëggati monsieur le maire. ah bañ a tàmm dina ko dina ko wokkatu de. <laughs> dina ko wokkatu wokkatu. <laughs> ñii de seen lal ba lu mu tuuti tuuti tuuti alaaji gëm naa ne buñ tëddee moom duñ laalante. la <laughs> ilaha illallah kan. Eh. wokk nga ne. waaw voilà. tey wokk yow xanaa gisoo yow message yow man la tey wokk voilà yow lii na message. dama titre bi doon laaj dañ koo copier def ko fii. copier yaa message yaa ngi c'est que journal bi itam mën naa bañ a génne lii nag moom itam ne dépendre ci jamono jàmm rek après génne message yi mu vilipande nii itam alaaj bi itam lii itam nag lii itam nag lii itam nag lan kii non lii itam nag journal bi bind moo na ko tay nag est-ce problème jàmm na ku muy dund na léegi muy dund na léegi léegi sa message bi na ni ko daj na. jabar ji bu copier message jëkkëram jox la ko yow taskatu xibaar loo ko mën a nag yow tamit nag gaynde. waa alaaji jabaru jabaru jàmbur ja tamit lan moom it lan lay copier. Mantoulaye est-ce que bu ñu leen toppee ci yoon bi am problème. parce que lii lii daa lii daa grave de. non waxuma loolu dama ne jabar ji laa la wax alaaji. est-ce que yow même boo leen tasee laa wax ngeen am njaboot wala amoo leen njaboot. Hmm. nga nekkoon a góor. xam nga yàlla ji weddi. Ah. alaaj est-ce que war nga jël ko góor kooku nga xam ne moo nekkoon sa borom kër. war koo jël teg ko ci digg mbedd mi ci kaw tali. def ko yaramu ne. Ah, ah, baax na baax na. awa Koudou Ndiaye am na liggéey de. données personnelles lii nii. di trafiquer ay données personnelles la de. waaw personnelles moom walaaj moom. moom données personnelles la de. di moom ñoo yëf ni dëggantaan. wax yëf ni dëggante waaw mais baax na ndaw si na dem rek moom it na xool fu muy mujjee na dem rek ndaw si di copier coller na dem na dem rek yaay na dem rek